xale bi maama ma ko yar moo tax mu réew xale bi maama ma ko yar moo tax mu réew bëggul kenn ku ko laal ndax xale xale bi maama ma ko yar moo tax mu réew xale bi maama ma ko yar moo tax mu réew xale bi maama ma ko yar moo tax mu réew bëggul kenn ku ko laal ndax xale xale bi maama ma ko yar moo tax <laughs> moo tax mu réew xale bi maama ma ko yar moo tax mu réew bëggul kenn ku ko laal moo tax mu réew xale bi maama ma ko yar moo tax mu réew bëggul kenn ku ko laal ndax xale xale bi maama ma ko yar moo tax mu réew